internet ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek tey nag ñu ñëw ak seen euh, émission muy euh, l'heure de la vérité tey ci loolu la ñuy waxtaanee ñu am comme invité de marque muy invité spécial nekk benn euh, écrivain monsieur Aline Ndiaye nekk expert en développement international waaye tamit nekk professeur vacataire fii nga xamante ne moom moo di ICAD waaye tamit yemul foofu nekk expert l'évaluateur de euh, l'ANAPSIP euh, fi nga est aussi nek euh, management de projet en gestion aussi mon nekk tamit ki nga chef de bureau évaluation de la direction de l'enseignement à MFPAL Comme moom la ñu dalal tay mu écrivain bu Magamak. ci livre yi commencé commencer gis nañ euh, la problématique du genre dans la formation professionnelle au Sénégal la transformation digitale au cœur de la formation en apprentissage La aussi euh, le formateur dans un monde en mutation ba léegi euh, ci livre yi nga xamante ne moom la l'apprentissage à la validation des acquis de l'expérience au Sénégal kon moom mun na wax né, <laughs> lépp rek mu ngi ko focaliser ci fi nga xamante ne Sénégal ba léegi rek mu bind li nga xamante ne moom l'assurance qualité dans la gouvernance de la formation professionnelle mon nekk bi mu andi ñu aussi la question de l'apprentissage au Sénégal la formation professionnelle un pilier pour la croissance économique au Sénégal Madame, ci wàllu économie euh, Sénégal euh, ci lay Fofou fofu aussi si livre yi jendiko. dem Amnatamit, rek tamit livre bi nga xamante ne mu ngi ko jagleel ki président Macky Sall mu Macky Sall au génie politique mu Macky Sall génie politique là à la croisée des chemins de l'émergence kon nak, euh, monsieur Aline euh, Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la bàyyi nga nuyonteeg euh, cher internet il a seetaan ci IM Télé International media TV. merci madame Ndiaye. Mhm. merci de l'invitation. Mhm. maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi seetaan. Mhm. voilà di aussi remercier. Euh, le caméraman ak euh, équipe bu Imtele yëpp. Mhm. merci beaucoup. d'accord comme ni ma ko waxee sànq am ay livres yu bëree bëri yoo xamante ne rek bind na ko Sénégal waaye jagleel ko askan bi yëpp jagleel ko au monde entier tey nag ñuy euh, décortiquer li nga xamante ne moom la problématique du genre dans la formation professionnel monsieur Ndiaye ci lolou la ñuy euh, focaliser wu tey ndax gis nañ né livre yi nga bind yépp machallah yépp yëpp tay nak tey doon wax par exemple euh, d'après vous lan moo lan ramener euh la prof la naka lañ ko waxee la problématique au niveau euh, du Sénégal. voilà xam nga yakarna ni boy jambat jangat mbir. Mhm. war nga ko jangat ci ñetti fan ba ci ñeent fan bu ñëk bi moy lu tax ma bind ko moy le mm-hmm. prétexte mm-hmm. lu tax ma bind ko moy dafa am ben constat bu nga xamni gis nañ ni mm-hmm. jigen ñi euh sen taxaway biñu wara taxaway am ci wàllu développement mhm. euh, dafa euh, dafa xaw a des mhm. ci loolu nag ñu bëgg a ñaax jigéen ñi gën leen a jàppale ba nga xam ni égalité entre góor ak jigéen dina mën a nekk ci yenn fànn mais boobu nag il faut ñu taxaw feefu ci benn fànn parce que góor jigéen moom mënuñu yem yam même mais ci ay droit mhm. dañu war yam ci accès à des post de travail dañu mm. war a yam mm. parce que kenn ku nekk nag yàlla dalaa sakk ak seen mi nga bindeewu mm-hmm. mu ne la mais nag ay borom xel lañu donc lépp lu góor war a mën a def jigéen war na ko mën a def donc mm-hmm. bon euh, dafa baax ñi jox leen seen place bi nga xam ne ñu méng moom la ñu méngoo parce que dafa am borom xam-xam bu mag benn bi bu naan euh,

boo leen nekkee. Mhm. tëj bunt ba. du leen boole du leen boole. voilà donc bon góor jigéen nag non la ñu war mhm. Mhm. dans le rendez-vous du développement le contexte mooy dañoo nekk ci benn contexte bu nga c'est important euh, Sénégal à la croisée des chemins Sénégal tëgg ben benn euh, stratégie de développement boo xam ne ñu koy wax PCE. PSE plan Sénégal émergent donc plan Sénégal émergent Bobo dafa gis ni dafa aligné sur les priorités internationales avec l'ODD hein, mm. les objectifs de développement durable oh, Hein. ci loolu nag foofu dañoo bëgg ba war a gën a mën a euh, am jigéen ñi am benn taxawaay boo xam ni macha allah taxawaay bu mucc ayib la. Mm-hmm. pour participer au développement et euh, intertexte bi mooy am na ñu bari ñu bind ci. Mm-hmm. ci effectivement de la femme mm-hmm. mais bien dama pour mm-hmm. pour participer pleinement pour le développement du pays euh, comme genre je que que c'est très important de focaliser sur le bu est pas que par exemple

Euh, ci benn euh, barrière euh, ku góor ki mën koo tëb ku jigéen ki mënu koo tëb mhm. nga xool lan moo tax jigéen ji mënu koo tëb boo ko tagalee ban parce que ban bu tollook ak góor gi mhm. mën na koo tëb mhm. alors que ku góor ki moom mën na ko tëb donc bon genre équité la pour tollooleel tolloole tolloole tolloole boobu pour que Nous mettre leen à l'épreuve de vos responsabilités. Mhm. pour que ngeen un rôle fondamental à jouer. parce que euh, islam sax parce que nous, ni ñi da rôle kenn ku nekk am am rôle. Mhm. te rôle dafa am solo mhm. n'est-ce pas moi mooy la moom mooy gouverner la famille. Mhm. donc jigen jigéen dafa am solo. motax ken kenn waratu leen. Mhm. Euh, body mhm. waaw motax euh, té lol nak ci fenn lañ koy taxawee moy Sénégal machallah euh am arsenal juridique bo xamni euh femme yi ñi ngi leen di fexé nu leen euh, conscientiser pour que nous voilà ak aussi sur le plan social aussi mu am benen lecture ñu xamni dal ci daaneel. Mhm. genre du affaire góor jigéen. mais genre moi on parle de la femme quoi on parle de la non de l'égalité entre. entre l'homme et la femme bah pareil mhm. gën dolel ak mhm. jëmmal jigéen. ah ak aussi gën euh, femme bi mu xam rôle pour gën ko autonomiser pour mu participer au. développement euh, de ce pays. d'accord euh, dafa am ay principal problème yoo xamante ne femmes yi ñu ngi koy mhm. euh, dans le milieu professionnel. Mhm. lan moo koy waral di andi exactement. voilà donc bon Fofu yaa ngi pointé du doigt. Ben, aspect bo xam man dina ma neex. bu fekkee ni vraiment yaa ngi ciy dut baaraam. mooy l'accès à des postes de responsabilité. mais aussi da ngay gis ci yenn société yoo xam ni dañ naan la jigen bu am dom duñ ko jël mhm. mais loolu c'est de la discrimination mhm. la maternité dafa bok ci jigéen mhm. donc bon lan nga wara a njëkk a compétence est-ce que ki amna na compétence a compétence égale mais nga jël ki nga xamni mom mo man gëmuma ni dañoo leen wara favoriser xam nga di di discrimination peut-être bokul ak euh, favoriser xam nga koy favoriser mooy peut-être ci ay euh, valla euh, connaissance wala ci ay relation parentale wala dara nga ñëw jox ko parce que boo xam ni yelloo yelloo ko non mais da ngay koy compétir jigéen bi ak góor ñi ki nga xam ni moo ko jël mais nga jox ko ko moo ko yelloo mm. bu dee jigéen ki la nga jox ko bu ku góor gi nga jox ko parce que léegi dama lay wax leen jamono ji dafa changé tendance bi demal ci école yëpp mm-hmm. les femmes ñoo nekk en tet man li ma lay wax nii. Mhm. Euh, dama ko remarqué te yow mii yaa ngi ci école. xoolal ma fii euh, élite santé. Mhm. boo xoolee di nga gis jigéen ñi. Mhm. ñoo nekk ca man en tête xoolal man établissement yi may jàngale yëpp boo xoolee jigéen ñi ñooy ñooy jël raw gàddu gi. loolu mooy wane ni vraiment euh, jigéen ñi Sénégal macha allah ñi ngi xam enjeu wu. jang bi ñi nga xam enjeu wu que ni ñom war nañu participer au. développement de leur pays de leur pays. Euh, lan moy principal euh, kii euh, euh véritable cause bi. lan moy waral tay ji jigen bu nekké ci ben milieu professionnel tout le temps il y a des problèmes il y a des problèmes il y a des problèmes lan mo koy waral exactement. oui non c'est que aussi li koy gëna waral surtout moy des fois aussi jigen ñi xam nga rek c'est ni yenn problème yi moom la bëgg transposer dans le milieu professionnel. voilà mais man je je vois que loolu aussi war nañ ko teg fële. ñoom ñu am beneen comportement boo xam ne dañoo war wane ni ay professionnels lañu. ñu wane ni ñoom aussi dañoo am ay compétences hein, que ce soit les compétences conditionnelles les compétences déclaratives les compétences euh, procédurales et les compétences entrepreneuriales pour wane ni ñoom mérité nañu poste bi ñu leen di. jox te man en général am na yenn station nga jox ko jigéen mooy ci ngay gën a am ay résultats. ngay gën a am satisfaction parce que euh, dafa am yenn poste yu nga xam ni macha allah surtout ay management de ressources humaines parce que la euh, la femme dafa elle est maternelle mën na fexe nu muy euh, voilà tojee bopp jën a xam ba nga xam ni. Mhm. coow du jëpp mais bu dee góor sax mën na am yenn problème yi mais bu dee jigéen mën na la jaa jaare par les ba ñëw fekk la ci li yow li nga bëgg indi la la ci moom li mu bëgg bon euh, c'est important que jigéen ñi ñu gën a xam seen wàll xam ni dañoo war a jiite tamit te mm-hmm. loolu y'a la loi sur la parité mm-hmm. donc bon euh, loi boobu vraiment ñi ngi ñaax aussi euh, les décideurs politiques ñu gën koo rendre effective voilà parce que lolo bien vrai que c'est effectif mais amna fo xamni des na fa fay soxé sur le plan parlementaire gis nañ ni Sénégal bokk na ci pays yi nga xamni c'est la parité intégrale au niveau des collectivités territoriales aussi ñu koy appliquer. Mhm. au niveau des assemblées constitutives aussi ay Sénat euh, xam nga yooyu non au pas Sénat mais au niveau des que euh, des euh, la structure qui concerne les collectivités territorial hein ngi donc ça veut dire que effectivement machallah vraiment lolo c'est c'est ancré mais nag des na ay ay challenge et vraiment bëgg nañu y a yooyu les les contre euh, les défis pour la pour la performance effectivement dans l'accès à des postes de responsable mais beneen affaire am aussi mm-hmm. l'accès à la mm-hmm. loolu c'est pour ñu mën a déplacer la problème au niveau des de la campagne da ngay gis ni boo niveau boo demee ci campagne bi am na ñoom danaan jigéen warul mën a hériter de la terre et tout ça mm-hmm. wala jigéen bu ko hériter du ci def dara mais loolu moo fa war a jeex li góor ki mën jigéen ki mën na ko def donc accès bu accès à la terre mën na te te pourtant ñoom tool yi am nañ dëkk yoo xam ne boo demee jigéen ñi ñoom ñooy bay jigéen ñi ñooy bay ñooy dem tool ñooy def te moom waaw te léegi ñoom amul ñu rémunération ak beneen affaire aussi ñu nga ko gis am na jigéen ñu nga xam ne pour lii gën a renforcer seen vulnérabilité mooy de dañ leen di euh, teg ci yenn post yu nga xam ni macha allah yow xoolal buñ la tegee ca kër ga nga nekk femme de ménage. Mm-hmm. kenn du la fay de kenn du la fay. kenn du la fay. waaw loolu dafay ça rend vulnérable la mm-hmm. femme. donc bon ak aussi ñu leen di nous ñuy am poste de responsabilité comme pas ñu leen di jéem ñu di poste de femme de ménage de bonne et tout ça ouais. yo, on on on dañuy dañuy véritablement euh, minoriser l'apport des femmes dans le processus de développement C'est vraiment euh, man li may man nag man c'est je suis l'avocat des femmes parce que man je suis partisan du gender mainstreaming mm-hmm. le gender mainstreaming n'est rien d'autre que nag mooy processus d'autonomisation des femmes mm-hmm. femmes yi dañ leen war a libérer des jougs ah mooy les réalités sociales des yot la ñu teg ko fale mm-hmm. ñu mun ñu nekk ay femmes modernes des femmes qui doivent participer au processus de développement man bokk loolu laa gëm. d'accord les femmes modernes boobu noonu nga xamante ne moom lañ bëgg est-ce que tamit du andi quelques problèmes parce que gis nañ ne léegi euh, femmes yi dañuy bëgg liggéey comme ni nga ko waxee sànq dañuy bëgg nekk ci yenn post yoo xamante ne tey jii comme ni nga koy waxee góor lu mën jigéen mën na ko ba daf leen di andil des fois ay problèmes yoo xamante ne duñ xam fi ñu ko jëlee ay promotion canapé mu ngi fi. Hmm. ay nit ki teg ko place boo xamante ne waru fa mu ngi fi mais lepp lu koy andi moy dañ leen di dañ leen di def looloo xamanteni danaka rek bokul ci sen sox est-ce que loolu tamit bokkul na ci sa développement ci ci livre bi. waaw loolu loolu lepp euh, ay réalité la la yoo xam mm-hmm. bon ça existe parce que amna femme femmes yoo xam peut-être euh, dañuy bëgg até até sen promotion fekk ne amuñu compétence yegguñu fa bu boba yow bon do do bañ yenn affaire yi mais man femme bu nga xamni ni. respectable respectueuse am na yoo mm-hmm. xam ni am fulla ak fayda yaakaar naa doo ci àgg mais nag am na tamit femmes yu nga xam tamit dañoo dañoo yàkkamti seen àdduna bëgg am léegi jënd cheveux naturel à mm-hmm. quatre cent cinquante mille mm-hmm. bëgg a ñëw jël xaalis bi yàqate jël téléphone bu un million wan donc yooyu book yooyu da nga yàkkam si àdduna amoo ko amoo ko liggéeyoo ko mais da ko yaakaar ci nit pour mu jox la ko donc loolu mooy indi vraiment yenn attitude de vulnérabilité yi ba pare mooy indi yenn ce qu'on appelle les VBG les violences basées sur le genre mm -hmm. bon yooyu yëpp euh, dafa am te yooyu c'est des violences multiformes au niveau du du foyer hein, au niveau par exemple de l'attitude de certains hommes par rapport euh, n'est-ce pas au comportement des femmes donc donc yooyu yëpp ay réalité la yoo xam ni mi ngi ci mi ngi ñu ngi koy dund mais man li ma gën a gëm daal mooy jigéen ki ak góor ki ñeem da ngaa war a gëm sa bopp liggéey takk ñàkk jariñu liggéey ñàkk jariñu foofu la ñuy uh, demee rek si solution yi lan mooy solution yi nga xamante ne rek war nañ ko mun a apporter jigéen ñi ba ñu gën a xam seen bopp solution bi mooy lenn tey solution yi jigéen ñi comprendre nañ ko mooy lan nga fexe ba nga xam ni il ne faut pas être dépendante jigéen gi warul dépendre trop ni de la famille ni de, de, du mari, ni en tout cas de de de quelqu'un d'autre que ce soit. Mhm. yow yaa war a gëm sa bopp xam ni magum jëmm nga tu es mûr majeur et mature da nga war a tu es artisan de ton propre devenir gëm sa bopp liggéey ñàkk jariñu mooy nga bañ a dépendre ci kenn mais xoole léegi jigéen ñu bari dañoo bëgg la facilité ñu ngi ci la prostitution nga baal nag ah, mhm. ah mhm. mi ah, donc parce que yaakaar nañ ni peut-être moo gën a yomb parce que benn nii mën nga cee liggéey loo xam ne koo xam ni benn benn salaire mënu ko am mais man je trouve ko loolu bon euh, mënut a ñàkk dans une société dina am ñi jaar nii ñi jaar fi mais man li may gën a ñaax jigéen ñi mooy jigéen nga gëm sa bopp gëm sa bopp xam sa bopp xam sa bopp ba pare euh, xam ni yow da ngaa war a participer pour le développement du pays xam ni yow li li nga xam ni euh, moo lay dimbali ëllëg dimbali sa njaboot ëllëg mooy nga takku ñafe takk sa sër liggéey mhm. ah ba nga xam ne euh, say euh, doom ëllëg di nga leen mën a aider parce que jamono ji dafa metti te léegi c'est pas c'est pas moo tax te léegi kaay ma wax leen mhm. góor ñi léegi nga baal ma ma ma ma maa ngi leen di sànni flèche mhm. góor ñi léegi takkatuñu jigéen koo xam ni day dara loolu mooy mange mille léegi apporte mille apporte mille la ñuy indi. koo xam ni dina même bu la doxal la naan qu'est-ce que tu fais dans la vie la lay njëkk a laajte. alors que <laughs> auparavant jigéen ñi ñoo doon wax wax bu leen di góor daan euh, seet si ñu ñu naan. loo liggéey léegi eh? nag jigéen parce que jamono ji moo metti mm-hmm. ba nga xam ni benn kenn ki rek munul def lépp te jigéen ñi seen bëgg-bëgg dafa bari. Mm-hmm. si jigéen ñi seen bëgg-bëgg dafa bari te koo ci defalul mu mer. mere la indi la ay problème hmm. léegi nag moom moo tax nag yow ji même ku góor ki fexeel ba même sa jabar bu fekkee liggéeyal ñaax ko fexeel même nga financé ko benn muy liggéey nga jàpp fi mu jàpp fii seen ménage mën a neex te loolu dafa baax parce que lu tax jigéen boobu lépp lu mu am ci njaboot gi la koy investir hmm. ñun kañ ñun ñooy am dem di takk jabar ah ñaareel ñetteel ñeenteel <laughs> waaye ñoom bu ñu amee ñoom dañ koy investir dañuy ci kër gi

Euh, c'est pour avoir, moi je suis un développement, expert en développement international. Mm-hmm. Peut-être Sénégal, lañ ma pas, mais sur le plan international, je ma. préféré euh, vraiment de DEFCO et puis vous édition en ligne les éditions universitaires sont présentes dans 40 000 librairies dans le monde entier. par exemple am sama livre c'est traduit en sept langues l'implantation de la validation des acquis de l'expérience B, mhm. c'est traduit en sept langues Bon, demee presse universitaire mhm. européenne boo du ci site bi nga catalogue mhm. bu catalogue vous nga affaire le livre traduit en, sept langues euh, espagnol italien euh, anglais euh, français arabe euh, espagnol russe. sept langues lañ ko. voilà c'est présent dans 40 000 librairies dans le monde entier donc donc vraiment donc visibilité internationale mom, amna ko mais. Mhm. l'idée c'est mooy nit ñi xam au Sénégal. lan lan am xam xam mhm. lan moom ma produire pour mhm. nit ñi gën koo am livre nak, doko gis librairie doo gis fan, ci man rek ngay ñëw contacté ma ma daal di la koy parce que boo ko naree. tamit jënd fële lu tax placé woo ci librairie yeeg yooyu noonu. voilà parce que bi c'est en ligne. Ah. édition en ligne la en ligne la librairie en ligne rek la. waaw mm. ah, ñoom ñoom duñu duñu kii quoi ñoom du duñu waaw ou bien boo bëggee ñu defal la ko. Mm. c'est c'est c'est pas à la portée. xoolal par exemple le livre là sur Maxal ça coûte quatre-vingt-seize virgule quatre-vingt-dix euros. loolu lay jël quatre-vingt-seize donc presque soixante mille fi au Sénégal fii au Sénégal français fa. kuy jënd livre à soixante mille. donc mais ñun fexe nañu ba ak suñuy pexe. Mm-hmm. effectivement fexe ba nit ñi nit ñi di ko mën a am. Euh, à un prix voilà voilà voilà à un mm-hmm. prix. Euh, abordable abordable quoi nga xam ni dinañ mën a lire xool li ci nekk daal waaw mm-hmm. waaw. D'accord, euh, accord comme euh, ni nga ko waxee fii rek à toi le Sénégal. Mhm. kon sénégalais yi war nañ xam exactement kan mooy euh, monsieur Aly Ndiaye nekk écrivain bu mag a mag gis ngeen livre yi nga xamante moom andil sénégalais yëpp wax ko daw jënd ji lire ko parce que dafa am importance surtout ma bi nga xamante ne la focaliser wu tay, muy la problématique du genre dans la formation professionnelle au niveau du Sénégal kon nak, ñuy wax ñëpp daw jëndi ko comme ni ko waxee rek képp ko xamante ne soxla nga ko mun nga ko contacter bu ko defee rek mom, dina la ko woyofalal bu baax ba. kon ñu bàyyi la rek ma am tuuti rek lu ma ci dolli dolli Mhm. édition bi l'univers de la formation professionnelle mhm. c'est pourquoi dama parcourir plusieurs problématiques mhm. livres livre, rek mais des na ñenti livres yu l'insertion professionnelle des jeunes livre le bu nga encore l'orientation professionnelle des jeunes vers la formation par apprentissage un trésor est caché dedans bokku na ci collection le management des ressources humaines aussi mi livre bu am solo képp ku nga xam ni yaa ngi def GRH livre boobu am parce que c'est les dernières préconisations sur euh, le management des ressources humaines la gestion des compétences la gestion des talents dans les structures organisationnelles qui loolu la focaliser donc bon euh, comme li nga wax rek mhm. ñi invité ñëpp ñi nga xam ni soxla nañ surtout les établissements de formation Nous mhm. ñëpp war nañ ko am bibliothèque parce que c'est une grande première hein, au Sénégal. Mhm. Parce qu'on n'a pas l'habitude, effectivement, de produire, même au niveau de la formation professionnelle, euh, véritablement, c'est une grande première. Donc, je pense bien que c'est important, Nigni, Hamni, vraiment, il y a quelqu'un qui est en train de faire des efforts. Nous appelons maintenant c'est pour partager sa connaissance. Voilà, pour Nini, Gana, aussi, nous gens qui

à la formation professionnelle au niveau du Sénégal Tay ci livre bi lañ focaliser woon waye dinañ ñëwaat tamit ci yeneen livre yi nga xamantene ne euh, andil nañu ko benn par benn rek comme sénégalais yi xam livre bi moy lan ñu bàyyi la sa dernier mot. merci ma ngi lay gërëm yow tamit euh, mm-hmm. madame Ndiaye hein di la féliciter aussi ci effort bi nga def pour mm-hmm. vulgariser effectivement li au niveau de Kër mm-hmm. di leen wax ni aussi. ñun doomu Kër Massar lañu Kër Massar lañu am Kër Massar la ñuy tiitaroo. Mhm. donc bon le fait ngeen ñëw jël doomu Kër Massar ki nga xam ni ne ah, eh, conseil municipal la woon fii. ah donc doon bay waaram ba léegi nekkatu ko mais ba tey xelam mi mi ngi ci pour le développement de Kër Massar ngeen mhm. ñëw di feeñal li ma du mënuma lu dul di leen dërëm di gërëm aussi euh, le caméraman. di gërëm aussi vraiment le directeur général monsieur Sow bi nga xam ni moom macha allah. Mm-hmm. ku ñàkk ki ñaan koo xam ni vraiment macha allah. lu jëmale tanam rek moom la bëgg et puis ku am yërmande. Mm-hmm. ah ku mën a dimbali macha allah bon ñu ngi leen di gërëm di leen sant.

di nuyu bu baax a baax Mami la Linguère mi nga xamante ne moom mooy jaax ci lépp loo xamante ne rek gis nga ko ci kanam ci man moom moo ci jaar waaye di nuyu baax a baax euh, docteur Babacar njaay depuis dalal jàmm du ma fàtte docteur Diafara chirurgien bu mag bi nga xamante ne moo nekk aussi dalal jàmm xam naa daam dina ma waxati yow waa dalal jàmm war nañ ñëw <laughs> andi seen participation waaye di nuyu bu baax a baax aussi. Euh, docteur euh, Cherif euh, euh, Thiawlaay di nuyu bu baakha baax monsieur Aliane nek anesthésiste monsieur sec, Saliou anesthésiste aussi waye madame Aissatou, Ba nek tamit anesthésiste fofu ci dalal jam may nuyu ñep bayuma kenn di nuyu toute la famille Diobène waye tamit duma ma ki nga xamantene rek mom modi sama frère bobu nga xamantene rek mom moy Ibrahima Fay di nuyu ñep bayuma kenn di len di wax benen yoon benen invité si l'heure de vérité merci